mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show ci talaata gi ñuy gërëm di sant képp koo xam ne yaa ngi seetaan alhamdulilahi rabbil alamin nañu wax sant yàlla suñu borom bi nga xam ne moo ñu sàkk ba mu ñu yeew ñoo fas yéene bëggal ñuy ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm defal ko mboolam jullit rawatina nag ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi te nekk ci bopp taraxe yi yàlla fi yàggal nga xam ne nag ñoo fi jógee yàlla na yàlla xare ci àddina gën a kawe ñun tamit suñu ay waajur yàlla bàyyi di ñu seetaan yàlla na yàlla jàppale may leen fan bu gudd ak wér-gu-yaram ba ñu uuf njaboot yi uuf sët uuf télé yi di seetaan ñu caabi fii ci ginnaaw yàlla na ah, yàlla fëggal seen ginnaaw ba ñu mën a génn daa dee dox ci ah, jamono ji waaye ñi tamit tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla yàlla yëkkati ba ñu delluwaat seen njaboot ñi nga xam seen poste dara nekku ci yàlla na ci yàlla dugal xaalis ak ñi am jafe ah, ci àdduna war a kéet buy lijjanti bu të yàlla ko yàlla saafaral mbokk yi ki nekk ci réalisation bi tey mooy Alaaji Malick Ndiaye di réalisateur central bi feggoog Haj Mansour Gueye bi nga xam ne mooy ingénieur de son mbokk yi ñuy am mbégte di ziar kilifa diine na suñu bàyyi Serigne Ahmadou Maktar Mbacke xalif bu Daaru Xudus yàlla yàlla gudda fanam di ko ziare nag ci turu kilifa diine yëpp nag ñu leen di ñaanal jàmm ak Cerno Mamadou Diop grand marabout à Bodé ñu leen di ziar ak suñu papa Alaaji Yatma turu xalif général des Tidianes Serigne Babacar Mansour Sy est sous la direction de Serigne Mansour Sy Al Maktoum et toute la famille de Serigne Babacar Sy Rabiya Taala Anhu Serigne Mouhamadou Taïba Sil et tout la famille Serigne Mor Diarra Sil vous invite à la ziara annuelle bi nga xam ne dañ koy def de Serigne Mor Diarra Sil kii Euh, qui aura lieu le samedi 18 février 2023 foofu ca Sinthiou foofu nag wax dëgg yàlla defoon nañ ko daaw fekk ko euh, euh, defoon nañ ko fekk ren ñuy defoon nañ ko daaw fekk ko ren ñuy ñaan yàlla tamit képp koo xam ne taali bi nga xibaar bi nga fexe ba le 18 février fekk la ci Sinthiou Thiel ndax nag wax dëgg yàlla gàmm gu am solo la boo xam ne képp ku ci teg tànk tànk yiw la booy dem tànk yiw la booy ñëw te lépp lu fa ñaan ci bés bi ak ki waral bés bi yàlla nañ ko yàlla nangul ci barke Seydina Mohamed ci barke Cheikh yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu waral bés boobu mbokk yi ah mbokk yi coow am na CNG bii nga xam ne moo yor affaire dawal fas yi nga xam ne Cheikh ña nga ko yoroon ah nee nañu yoroon bi mu ko yor dafa yàgg te mandat yi dafa tegloo te xale yi neen dañu bëgg ñam nee nañu daal wax dëgg yàlla ñoom am na ñu taxaw tebb ne CNG bii nga xam ne Yankhoba Diattara moo ko installé am na ñoo xam ne ne ñun d'accord ñu ci CNG bi ba nag nee nañ le 29 seen ay fas du daw am na soke yoo xam ne tamit dañoo ànd ak ñi nga xam ne ñoom nee ne ànduñu ak CNG bi gis naa nag oto yu gereew gis enseignant yi gereew docteur yi gereew waaye ay soke yu gereew ak ay fas yu gereew bi ma juddoo ci réew mi ba tey maa koy soog gis lii nag dañ leen koy tënkal ndax information bare la ba fi nga xam ne na sax mooy euh, revue de presse yi am na ñu ko jot a def ñu ñam ci tuuti soog a ñëw dëgg tribune sport ne ma coow laa nga ca course hippique bi de ci loxoy kan la kopparu course hippique bii di daal di tàbbi laaj bi la tribune sport xëy samp ni ki tey tey jii Cheikh Tidiane ña ngi la yan xooba jaatara tegaat ci boppuk CNG bi ña ga xam ne ñooy borom fas yi naqarlu ko lool éleveurs yi jokkee yi nga xam ne ñi ngi en activité même ñi retraité entraîneur amateur kenn àndul ci tabaat gi ndax boobaak léegi nee ñu koppar gay jugee ci course hippique teguñu ko bët gisuñu ko kan moo koy jël ci kan lay profito dégg ko mbokk yi gis ngeen loolu kon nag information la ñu dem seeti borom fas yi nga xam ne ñoom nee nañu ànduñu ak ki nga xam ne moom lañ fi teg te tollanti mandaam ñoom nag ak seen i ay fas jàpp nañu ne incha allah dinañ leen dégg ci yeneen grève yu gën a garaaw yi te fas bu grèvee rek lu bëri dina feeñ ci réew mi mbokk yi ñu dem ànd ak ñi nga xam ne mooy groupe Mbaboor ñu teeru ñaxtukat yi maa ngi présenté wu maa ngi tudd ma Madické nekk dawalkatu fas ak sama doom bi wax dëgg yàlla moom tamit muy dawalkatu fas ñu koy tuddee cuut cuut mbaye ngi nii waaye ñun tey CNG bii nga xam ne moom lañ fi teg ñun dañoo àndul ak CNG bii lu tax ànduñu ak CNG bii sama doom bii day dawal fas man damay dawal fas waaye naa ndax sama poids antanutul fas waaye sama doom bi cuuc am na lu ko metti nee na am na loo xam ne mooy priorité mooy defar stade bi waaye tamit jëlaat li nga xam ne mooy CNG dugal fa ñu bees ak teg fa ñu bees ñoo xam ne wax dëgg yàlla da nga cee mën a gis seen bopp xoolaat ni ñu mën a moderniser li nga xam ne mooy ah, dawalum fas tuut kaay taxaw nii. man man euh, bi ma bi ma yóbbee cees ba tey tey laay doo ko gis lu mel nii ña ko ba jatara daf ñoo seetaan. Yankoba Diattara football bi la gën a favoriser ak làmb jeeg yooyu ñun fi ñun ñun euh, deux mois wa ngi ne kii wuñu gis nañu ko te stade bi da ko war a defar. stade bi course ba fii si course bi xoolal xoolal xoolal kii bi xoolal euh, euh, xoolal xoolal suuf si lu mu bëree dafa war a nga ci fi mu nekk nii fas yi su nekkee 100 poids la si ku am 100 poids du mën a daw bu baax day sonn ah Yankoba Diattara si boppam. dafa war a tëjaat stade bi defar ko course ba fi mu nekk nii li mu mel baaxul. loolu moo doon priorité moom. moom ministère des sports li priorité mooy mu ñëw defaraat stade bi. def ko ba mucc ayib. waaye stade boo xam ne benn tribune la kër yi mu jàkkaarloo étage yi ku bëgg seetaani fa ngay taxaw. doo dagg billet am na loo xam ne moo doon priorité am ñoo taxawal CNG boo xam ne à l'humanité am na ñoo xam ne ànduñu ci ñun nag li ñu bëgg mooy li xale yi bëgg te xale yi li ñu bëgg moo ñu teg fa ay xale yoo xam ne ñoom ñoom ñoom méngoog jamono ba pare mun a dawal li nga xam ne moom mooy làmb euh, euh, course bi mu daw normal. ticket yi kenn du ko jënd ticket yi kenn jëndatu ko waaw te il faut yow nga xamante ne man su su ma bokkee si course bi euh, sama fas su ma ko tuddeewul. benn benn benn benn kenn benn aljo wala benn jaar wala benn ñanga du ñoom duñ ma jox xaalis. léegi li war a dundal fas waratul nekk ci ay turandoo. li war a dundal fas waratul nekk ci bés sangam wala bés sangam journée sangam xale yi dañ di war di dawal kon ni football bi di dawalee. ni championnat bi di dawale loolu nag ki ko fiy indi mooy xale yoo xam ne dañoo xeltu xam ne dañoo bëgg euh, président CNG de euh, euh, course bu bees tàq boo xam ne ñun dañoo taxaw ñaxtu te fas yii. kat ñu ne ñoom ay doomu ndey nañu. yàlla nee na ku teel a fas bu fas te suñu fas yi dañoo dégg. fas yi sax dañoo mel. fas yi sax dañoo mel. fas yi sax dafa mel xoolal fas yi suba ba tey naanul suba ba tey lekkul jox na ah jox naa ko lekk mu bañ. ma ne ah. ma ne ñun daal xale yi nga xam ne ñoo nekk ci CNG bi bëgg jël place euh, président CNG nañ leen ko jox Yankhoba Diattara li mu war a def mooy defal ñu structure yu baax stade yu baax dawukaay yu baax. ay yu moderne boo demee Maroc moo fa am boo demee Algérie moo fa am boo demee Tunisie moo fa am dawlu fas ba day dundal nit ni football bi aaroo lamb ji am seen stade ñun noonu nañu war a am stade moderne kooku nag ki koy def xale yu bees yi ñoom nañu war a teg ñun CNG ñun ñi nga xam ne ñooy dawal ko fas yi ak fas yi ay fas yi dafa mer xuru xuru du dem du dem dafa mer super étoile laa ko tuddee super étoile ah. super étoile di nga daw le 29 am na nga am na nga CNG bu bees bi ñu fi teg ah, kon xam ngeen ne fas yi sax ànd. waaw acca acca ah, ah, demal waaw waaw waaw ay xale la ñu bëgg ñoom Omar Baawo Omar Baawo xale yu mel noonu nañu war a dénk mbir yi acca le 29 dawul ñu de ah xaw xaw. inna ad-dariha la rawdul qutb. biir Sénégal depuis démb presse bi ñu ngi xoolee sax fi nga xam ne mooy futur euh, futur média ci émission bi nga xam ne nag moom mooy jàngat bés bi def mooy euh, jàngat bu solo mooy ñëw ki nga xam ne moom mooy euh, Marie Le Pen ñëw Sénégal def fi ñetti fan dem Richard Toll ca toolu ñambi suukara jóge fa dem na Gorée waaye tamit def na interview ak Mamadou Ibra Kane fii ci presse bi ñu ne déet na waaye mu dem ca palais ba waxtaan ak président Macky Sall kooku nag moo waxoon ne bés bu nekkoon président de la République France ñi muy jëkk génne Sénégal ci lay bokk nee na Sénégalais yi lay bokk <laughs> ñooy njëkk génne ci pays africain ndax li ñu sa li ñu fa bëree kii nag moom weddiwul ne wax dëgg yàlla moom ah, bëggul nit ku ñuul nangu na ko parce que ñoom ah, ki nga xam ne mooy waajur bu góor dafa xeex nit ku ñuul lu yàgg yàgg yàgg mosul bëgg nit ku ñuul te ñoom tamit nekk nañ parti boo xam ne daal bëgguñu ku ñëw seen dëkk bëgguñu immigration rawatina xeet bu ñuul bi ñoom daal wax ñu ci dara kooku nag moo ñëw Sénégal daf fi ñetti fan bi mu ko defee nag coow li ci ginnaawam ak avant muy ñëw coow li bëri na waaye coow laa ngi soog tàmbali bi mu demee ba woon ginnaaw Sénégal moom Marie Le nag nee na kenn du ko jëw mun na tontu boppam te xam nañu bu baax te li mu doon wax tey la gën a dëgër ci loolu changé wul li taxul mu ñëw suñu dëkk nag dafa mu doon vérifié ne nag gis na ko mu ngi noonu di dellu ñu teeru ki nga xam ne moom mooy Marie Le Pen mu wax li ko neex Sénégal ak li ko naqari Sénégal arrive wuy jërë ngeen jëf maa ngi nii di dem aéroport Diass man ke ñëw naa bay dem ñibbi dégg naa sama ñëw bi fii ñetti fa yi def leen naqari mais yéen a ko def parce que kooku am ne dafa toog bitim réew di wax ne bëgguma nit ku ñuul man de loolu loolu man musuma ko musuma wax ne bëgg naa nit ku ñuul man li ma fi indi sama intérêt rek moom fi indi te li may ñëw yëpp nooyuma ko yooyu dëkk waaye kuy gis kuy gis kenn ku ñuul di ko bañ boo gisee dëkk bu ñuul kundum kay <laughs> doo fa yàgg sama ñetti fan yi mu a mel ni ñetti weer si man ngeen yagar yagari di ma yóbbu may dem Gorée li ma fay wax si li ma nekk ci Gorée maa ngi naan mm, ci ciipatu sama biir xel bi yéen daal vraiment foogoon naa ne su ma egsee Dakar da ngeen may nulli ba ma nooy lépp da ngeen may door ba man talaata ma ba ma mel ne euh, mburu tàppalàppa waaye ma ñëw seen dëkk bi def fi ñetti fan fanaan fi ñetti fan te man musuma bëgg nit ku ñuul man Marie Le Pen man maa wax ne bés bu ma nekkoon président France sénégal yi lay njëkk a génne parce que nekkewu leen euh, France dul neef neef tey ne parce que xale bu nekk ñaar fukki junni la waaw xale bu nekk France ñaar fukki junni la te bu ngay nekkee liir ba ba ngay am fukki at ak juróom benn da ngay am bourse ngeen dégg ko nag ñëw di neef rek tey tey wasin tey tey tey neef tey nampal fii uuf doom sénégalais rek gis France mu uuf nampal boot roggante téye benn ngeen nekk suñu dëkk bi fees fa dell guddi ajjuma nag alxames kenn du dégg ngay dégg fii ñuy way elle eh, elle eh, eh, ba kañ kenn mënatul am daayira ay café Touba beñe dugub ndambe salte ba dee xaar tuf di sotti di yépp ngeen ko def yéen ma ñëw seen tekki bi <laughs> ngeen may teeru. xanaa léegi. xanaa léegi. man daal. Ah. day ma doon dégg yéen olof yi ngeen ne fu lay jaay Dakar. waaye yéen yéen yéen. ma ñëw ngeen man foogoon naa sax de biñ ma da ngay gis ak Macky dama ne du dëgg loolu mënul am. ndey maa toog ak Macky Sall muy wax sama xel bi may muy wax may dégg fii muy jaax ne man sama affaire bopp moom fi indi woon affaire état indi ma fi de dama den ti ay tool dem naa bari saa tool ñu woon ma toolu ñambi suukar yi parce que suukar day manqué fan yii di ñëw France ma doon xool nag fii ak fii ak vingt ñaar fukki at ci kanam suukar day manqué ma ne balaa muy manqué nag naa ñëw lijjanti sama ay tool ñu ne ma risaa tool am na ay toolu suukar man li ma indi seen dëkk bi li ma ci gën a nag ñu jël ma yagar yagar bi yóbbu ma gore yaakaar ne su ma demee demee jooy rongan tuuruwul ci man dama doon tappale rongan tuuruwul ci man la ma fa wax sa gëw ko yéen daal xabte ilaay gën a nekkati seen dëkk bi nii la xatee embouteillage beñe mbedd yi niyax soow fonde yéen lekku leen ma dégg ñu ne Almadies le quartier chic de Dakar Almadies le quartier chic de Dakar boo xam ne bitig yi baxal nen jaay nen jaay fonde yalwaankat yi mel ni tulleeg malli yéen kay lii moo tax ngeen ne doole ñëw jimbi si yéen ndekete ay yéen ndeke ku ñëwul fii du xam lu tax ngeen ngoñ ci France de yéen a di ba pare ay gàllaaju bon ngeen jël fan yi depuis deux mille vingt deux bi gàllaaju nef ñaari seex ñetti seex ñeenti seex jëm kaw juratu leen benn léegi da ngeen di triplé di teg yéen lii leel la guddi gu nekk boo yuuxu foog ne àtte la fekk ne yéen ngi ci li li neex wasin rek wasin rek wasin rek seen góor yi takk tubaab di nax rek yéen seen dëkk bi maa ngi soog tax jigéen ñi lamb ay góor yu am doole ñoo fi topp suñu maam yi rek ci takk di yóbbu jël seen xaalis yi rek ngeen nopp nabuloo leen seen jéeg rafet yi ma gis ci Dakar xale yu di koo mademoiselle waaw kay parce que monsieur yi leen war a takk ñaka ca France ñoom Elisabeth ñoom George nit léegi sax ngeen commencé di tekk ci ñool yi waaye dans les quatre-vingt ku amul tubaab yaakaar ne amoo dara ni ma leen jéppee seen dëkk bu xat bi taxee ñett rek laa fi jëlee mooy dox di tëfli ak ñendu Tudo por um ñu ngi am mbégte bu mag euh, di wax tamit euh, màggalu bés bii nga xam ne Cheikhul Khadim euh, takkal Serigne Mor Seck Makamu Rijal le 28 janvier lay am foofu ca Daaru Seck ndog Jaaral Seck ndogal Cheikh Rijal gëm Gëmbamba xalif maam Cheikh Rijal moo si. woo jullit yëpp ci bés boobu nañ ko fekkee ndax le 28 janvier am na euh, yàlla na ñëpp euh, fekke bés ba te ku ci dem am tànk yiw tànk ñëw dem ak dëkk bi ñaanu Chérif Al Ousseynou Lahi le samedi 28 janvier 2023 9h lecture du Coran Saint chez Chérif Ousseynou Lahi 15h30 thé débat suivi de zikr chez Chérif Ousseynou Lahi animé par Cheikh Mbacké Thiaw ibn Chérif Abdoulaye Thiaw Lahi ci la ñuy le janvier 16e euh, édition Gamou Chérif euh, Mohamed Lamine Aydara et le mouvement euh, Wadilia le 17 mars lay am foofu ca Bambey séeréer si ñaan yàlla na yàlla may ñu fekk bés bi te ban cee tardé sous l'impulsion du chef religieux marabout et guide spirituel Thierno Mamadou Thierno Mamadou Amadou Diop et la Hadratul Cheikh du Fouta serait très heureux s'est euh, honoré de vous de votre présence à la ziara du Gamou annuel qu'elle euh, organise à Bordelao le 18 février 2023. Ces événements seront marqués par la présence de Tcherno Cheikh Mohamed Nouruddin Sall de Dara Halayebe euh, et e de Thierno Hamidou Ball et de la Mauritanie dinañ ko teewe ay kilifa yu mag ñoo nara a teewe bés boobu yàlla yàlla may ñu fekk kenn bañ a manqué ñu ñaanal tamit ci nekk ci dëkk bi yëpp yàlla dafa leen jàmm ci bés boobu bés bu am solo la Serigne Gora Seye et le mouvement les serviteurs de l'islam bu leen fàtte 11e édition bi ma ngay am ca Thiaroye Azur samedi le 11 mars 2023 à partir de 9h lay tàmbali bés bu am solo la euh, Serigne Mbaye Sarr marabu nekk ca Yoff côté Marathon ba mooy yëgal màggalu maam Cheikh Babacar Sarr di am le 12 février à Njaareem pencum Serigne Mbaye Sarr mboolem lu cheikh yi ak euh, jullit yi ñu ngi leen di woo ci bés bu bés bu am solo yéen yàlla may ñu fekk ko te kenn ban cee wutu mbokk yi kii nga xam ne moom mooy ba Diop présidente Suxali Saalum jigéen la boo xam ne wax dëgg yàlla yéenam ci Saalum ak fexe ba jigéen bañ a tàllati loxo te mën a suqali boppam rawatina nekk femme de développement actrice de développement ci biir Saalum nee na daal wax dëgg yàlla moom Saalum Saalum yi da leen yéene ba pare am yërmande ak ñeental ci ñoom ndax bu sonoon tey Saalum day bokk ci ville yi gën a set waaye tamit dimbali socialement jigéen ñi nga xam ne danañ dugg ci plateforme boo xam ne carte bi boo ko amee njëgu pharmacie yi sax boo demee garab buy jar téeméer ah, mun nga ko fa jëndee ñeent fukk wala mun nga ko fa jëndee juróom fukk lu ci des moo koy gàddu wala juróom benn fukk lu ci lu ci mun di am daal ah, carte ba dana la mën a may yow tolof tolof yeeg gàllankooru xaalis boobu mën a teggee ko ceew lu bëri ah jéena ba jóom nag xëy na Sénégal ñoo ko xamul waaye ci Afrique bokk na ci 33 jigéen yoo xam ne dañu influence ci àdduna bi wax dëgg yàlla ndomba tànk yi nga xam ne am na ko ci bitim réew ci ay président yoo xam ne dañuy jëflante moom bëgg mu indi leen ay xel ak xeltu seen développement réew ci Guinée Mali yeneen dëkk yu jege Sénégal wax dëgg yàlla des nañ koo jox cër ci loolu waaye muy nekk femme de développement boo xam ne bëgg président Macky Sall ak suqali Sall moo ko tax a jóg ñu seeti ko ci ñeew tal bi mu am ci doomu Saalum yi ba jóg jigéen ju mën góor mooy waxtaan ak waa Saloum ñu dem seeti ko. salaamaaleykum man de boo leen tuddee Saalum rek sama xol bi day tooy boo leen tuddee Saalum sama rongoñ yi day taa ndax fu fekkee ne da ngay nekk doomu saalum saalum bëgg saalum waa saalum bëgg la loo am rek da nga koy yéene fi nga xam ne fa nga juddoo saabu nag mënta fóot boppam waaye nit il faut nga wax ki nga doon pour ñu mën a xam fi nga jëm ndax liggéey boo koy ut dañ lay laaj CV CV mooy fan nga jaar lan nga def ak lan nga def lu positif ñu mën a xam ne kii kat jar naa jël dugal ko ci société bi waaye CV nag boo ko nit ki xamul yaa ko mën a xamal sa bopp man sama jaar jaar ñépp xam nañ ko man daa laaj de vingt ans laa commencé liggéey daan sama doole gëm sama bopp gëm saalum jàng bi waree ma jàng faj gàcce bi waree ma faj gàcce waaye yemala ko ci man kese dama koo yaatal ci biir saalum ak ñi ma mën a dimbale te yàlla tax président Macky Sall son excellence président Macky Sall son excellence président Macky Sall son excellence ñett yoon laa koy woow ndax nit da koy jox dayoo bi mu tolloo man rus naa naan Macky Sall rus naa na wax président parce que président Macky Sall c'est un jeune âge jeune la am di massifier di jàppale cadre yi nga xam ne ñoo am Kaolack te ñoo bëri macha allah te am na loo xam ne tey moom leen waroon Kaolack defuñu ko il est temps nag ñu génn la visage jàppale ñi nga xam ne ñoo liggéey pour Kaolack man kenn du ma yeb ndax fulla ak fayda ak jom ak liggéey gis nga Kaolack boo leen bëggee dimbali da leen di jëkk taxawu ci seen santé ndax jigéenu Kaolack sonn nañu góoru Kaolack bëgg nañu waaye dañoo gisul dama ne ñii nga xam ne ñooy milliardaires yi nekk ca Kaolack bu dul dara sax ñu xool dëkku maam Baye te xam na ne fii tourisme religieuse bu ñu ko développé rek Kaolack tey dina romb Sénégal jëm kaw dana romb Afrique jëm kaw ndax Nigéria boo ne Kaolack laa dëkk Nigéria xamuñu Sénégal Kaolack nañu xam boo ne Kaolack laa dëkk dañu lay teral ba nga tekki boole ne nag Kaolack laa dëkk rek ñoom xamatuñ sax duñ la laaj ci ban tarix nga bokk dañ lay jàpp kon Kaolack dafa waroon nekk deuxième ville aéroport bu mucc ay hôpitaux yu rafet macha allah yu am xañ-xañ xarañ ci lépp loo xam ne dañ koy def parce que gan yi fu ne ne ñuy jugee war a am ay ay hôtel religieux yoo xam ne maqaamul islam lay taxawee am jàkka ci biir am jumaa ci biir am salle de conférence yooyu yëpp mënoon a am Kaolack tey te nag possible la ndax man dama cee taxaw temm pour def ko arrêtez de tromper le chef de l'État bàyyi leen ndax monsieur le président Macky Sall ndax doful dina jàpp ko xam ne lépp fii la leeree man damay ñëw teg sama xalaat bu tax ba ndang ñëpp di ci jëriñoo ba pare bu ñu taxawee duñ la jëy na ba ko wax. DER bi li ma ci def DER bi projet DER bi li ma ca def ak xalaat li ma ci def dañ koo jël ba pare dem ba jël ko carrément mbiicu jéem koo maas arafal di jéem a bàjj bàjjal ca kaw te xam na ñu lépp man la waaye ndax xalaat bu rafet boo ko defee bañ jëfee ko nga gàtt gàttal sax nga ne ki ko xalaatoon na ñëw ñu boole ko ci projet bi mu eggali ko dama ne jigéenu Kaolack bu leen am benn complexe billaay li may taxawal bés mu sottee soo ne Kaolack laa dëkk nit ñi dañu taxaw di la seetaan bu dee ci taar la danañ ko yokk bu dee ci jom la danañ ko dolli bu dee ci diine ne moom xam ngeen ne Kaolack fa la diine fekk baax ndax maam Baye Niass la mu def ca Kaolack def ko ci Afrique def ko ci Europe wax dëgg yàlla daj dëpp bàngoog arrêté nag gis nga Sénégal boo fi nekkee amoo ful ak fayda waxuma sax nga nekk koo xam ne da ngay violente mais am ful ak fayda sama projet yi nag ku ko sàccati wuub sàccee laa lay may ndax du ma def ay liggéey yu rafet teg ko fi li ngi jël ko copier ko ba pare collé ko taf yëngal ba pare bu réussir ñu teg fa naan waaw système loolu moo fiy jeex léegi nag li ma bëgg te ma bëgg ko. mooy Kaolack daal ginnaaw yàlla ak bi bu ñu paree ci dakaar Kaolack dafa war a nekk dëkk boo xam ne neex a tëdd neex a yeewoo neex a neex a faj say aajo neex a fajoo neex a doxantoo mbalit bi puus na le maire bi nag neew ma mu ngi def waaye tardal ñu Kaolack tardel na Kaolack heure bii Kaolack ba mu fi tooga ba tey boo fi toogoon war a koo xam ne dafa toogal APR ba ma jam ko samay mayen ak li ne sama yuur gi <laughs> ñu bëri dañ yaakaar na sax économiste la te économie déedéet jëflante yi may jëflante man sama numéro man sama téléphone bu réeree damay dof ndax ñi ma ciy woo sama téléphone bu réeroon damay dof

Une poussée d'adrénaline. Le goût de la victoire. Êtes-vous prêts Découvrez tout cela et bien plus encore avec OneXBet. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Jeu autorisé par la LONAS aux plus de 18 ans. والبرسخ المختوم والهمام الأفخم والعيلم العلم أبو الفيض السمداني أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه te ak contentement bu mag di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan di ñu bàyyi xel sama benn xarit dem na ma Abou Bilal mën a naam mu ne ma daal suma yaay ku la sopp la euh, suñu ay mair yi nekk ca Tivaouane dañuy seetaan diñu seetaan di uuf télé yi di ñu xool yal na yàlla defal jàmm suñu yaay yu baax yi nga xam ne euh, des fois dañuy am gàllankoor ci seen yaram yaram bu neexul war a bu yi ñu toog télé bi moment bi ñu seetaan seen xol di sedd lépp loolu ñu ñaanal rek yàlla nañ ko bokk ak njaboot gi dañoo tax est que xam nga ne Tiwaawan dëkk bu neex dëkk la gis nga boo gëmmentoo bëgg nelaw dëgg te bëgg nelaw mënoo nelaw dëgg gis nga boo ñëwee ba ci jumaa ji jumaa Tiwaawan bi fi xabru sëñ Babacar féete nii xam nga boo duggee rek ci porte bi escalier da ngay yëg rek moom ngay gis nii position boobu noonu boo fa tegee sa ci miir ba waxuma la sax da génn ci jumaa ji sax ci miir bi boo fa tegee sa nii sa bopp nii nii nii 30 secondes nga commencé xef bu la nit fekkul foofu na la sëñ bi yaa ngi nelaw te bu la yeewee boo eggee sa kër nelaw man maa la wax li tellement dafa am maanaam mën nay tàng nit ñi di ñàq waaye ka teg fa sa bopp rek dafa am seddaay bu dugg ci yow li wër li wër sëñ xabaru sëñ Babacar bi yëpp noonu la mel lay walaay tiyaawan kër yi jàkkaarloo euh, xabaru sëñ Babacar nii nii xam nga ñetti xibla la est ouest nord sud waaye xibla bi nga xam ne moo jublu penku nii mel na lu penku xaw a weng nii kër yi mu jàkkaar noonu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bu ñu xëyee dañuy am dépense añ reer ndékki lépp ñi féete ginnaaw tamit la même chose boo maasalee nag néew ma ne ñëpp dañ koy am de waaye ñi nga xam ne ñoo am sens dëgg <laughs> ñoom ñu boo leen doon jaay kër gi un milliard sax duñ ko jaay ñu jàkkaarloo ah bëgg sëñ Babacar ñu foofu boo ñoon un milliard sax kër gi duñ la ko jaay mhm, waaw man su ma bëggee nelaw dëgg dëgg dëgg dëgg gëmmantu gëmmantoo Dakar bëgg nelaw damay jël oto dem ba Tivaouane teg sama bopp ci booru xabru bi nii rek waxuma ci biir de ci kër gi ci miir bi nii rek gëmmantu noonu laay laalaa oto nelaw ba Dakar egg si eggali sama nelaw Tivaouane dafa neex a nelaw bilaay dëkk bu neex te calme au nom du khalife général des Tidjanes Serigne Babacar Mansour Sy khalife général kulu Tidjane sous la direction de Serigne Mansour Sy Al Maktoum et toute la famille de Serigne Babacar Sy Rabbi Ta'ala anhu Serigne Mouhamadou Taïba Syll et toute la famille Serigne Mor Diarra Syll vous invite à la ziara annuelle de Serigne Mor Diarra Syll qui aura lieu le samedi 18 février 2023 à Sinthiou Syll gis nga gàmmu gii yal na yàlla may ñu fekk ko waaye yu am soxla war a am loo xam ne daf laa diis nga bëgg koo yenni boo demee ci bésu gàmmu gi ci guddi gi del ñaan sa soxla boo fa jugee dafa mel ne la ko yenni ñaan yàlla may ñu fekk ko te kenn bañ a manqué ci bés bi yàlla defal jàmm mbokk yi alaaji Malick moo nekk ca réalisation ba alaaji Wassou Gueye moo nekk ci technique ba nga xam ne mooy son ba Omar Réew mooy ñëw ci débat bu am solo diggante moom ak Ndeye Faye ak ki nga xam ne moom mooy Baye Fallou Macky Sall ñu dem seeti Omar Réew yow lii yow lii laa la. nii. waa ci la man toogal. man kay du ma di nga toog de. du ma kay yéen lii ngeen def nii nii nii ngeen def nii nii laa la. nii danañ génn tey rek Oulaye sekk mu baax mi rek boroom Saint-Louis du Sénégal solal ñu mën fi rafet yii rek sama enseignante boobu ñu koy sant bu baax. yow nag maa ngi soog a xam dëggantaan Ndiaye lii nga lii ngay nuurool yow lii daal pour dala jàpp ni yéen ñaar lii ngeen def nii. ak a toj ngeen fii télé bi. bu ñu jàppaloon day war toj ngeen seen bopp de. àlebu ah? yow de bi xaw dangay nuroog tukku dangay bëgg nuroog pël pël lu xaw ma dangay nuroog naar naar lu yow xaaral ma ñëw xaw ma lan ngay bëgg nurool nuroolu waaye ndey boo seetoo. ba koor sa bopp yéen lii ngeen def nii pour yéen toj ngeen fi. bu baax fii toj na fi seen musuwaar yi. seen cere yu bon yi ngeen sol nii. taykatu. tey taykatu cere yu bon yi ngeen sol kenn xamul loo di nuroo xanaa yen tàggu leen ngeen jël seen kanam yi tay ko ay yii carrière suufu carrière yi konk yii kii yow yow yow moom sax liggéey nuroo dinaa la ko yow de parc an war nañ la jël si yow ndax li li manqué parc an rek moom moom nga nuróol gis nga yow ci ta ci toogaay bii nii da nga nuróog ñay waaye ci kanam ni bu bukki bukki xam nga bukki bukki bukki bu jigéen <laughs> yow yow bukki bu jigéen benn ngeen yow ku la puudar rey na la xanaa sa seetu baaxul nga jël si kanam gi tey ko nii ngay nuróog paan yow ndey yow ndey yow pour yow da nga sant ni yéen li ngeen def nii foo leen ko teg. Ulay Seck bu baax bi jërëjëf Ulay mu ñëw rek yow loo déglu enquête. ngeen mel ne ay ay fos ay seex yoo xam ne dañ leen jaawale kii moromam bi keneen jël ko ngeen dajaloo daal nii ngeen takaw ngeen mel ne yow ngay nur ak naana takku naana lii de boo ko solee guddi génn boo jommalu nit. dina eh, xas yi dafa doy. Euh, soxna Ndeye dañ fee ñëw pour débat dañ dugg ci débat xas dafa doy say français yi dégg nga baax ma la wax yow mi nga xamante ne dangaa xuloo fenn xas dafa doy. bàyyi ko poqataanam bu xotteeku bi. Ndeye ajal. Ndeye ajal. Ndeye ajal. Ndeye ajal Omar. ki leen lay Seck mu baax mi yaayu maam jaara mm. sunu xarit bu baax bi sama sœur sama mag ju baax ja ca Saint-Louis du Sénégal ah, ok ku la ah, ku la jox dibi yi maa ko jënd fan xanaa marché unité 3 ku ta Sophie moo la ko jaay yow li nga takk nii ku la ko jox li ma takk nii war fay moo ma ko jox war a fay war na la moo jaar ci bijou yi war na la wara war na la <laughs> bijou yi bon yu kasaw yi la la jox mu ngi kenn fii yëpp ndax dent bu yàgg waaw yow pata yow pata nag yaa ngi soog a sol lu la yow lii rek nga war di sol yow leneen loo sol lu dul lii dañu lay nag waaw bu loolu jàllee maa ngi nuyu Sénégal àddina ak li ko wër di nuyu àddina wërngal këpp di jiital ci nuyoo bi kilifa diina yi ak kilifa aada yi di nuyu son excellence monsieur président Macky Sall di nuyu madame la première dame di ko wax derrière chaque grande dame rek yaa une grande mu ngi ci ginnaaw boroom këram di ko dooleel tey nag dañuy daal di dugg ba biir Saint-Louis di Sénégal daal di fay fekk ki nga xamante ne mooy suñu xarit. rey na leen bëgg ñu di suñu soppe macha allah toujours ni lay def ak ñun. aka bon. ulay sekk mu baax mi enseignante bu ñaawul boobu eh, noonu nga xamante ne xale yi dañuy xëccoo pour mu jàngal leen. xale yi dañuy xëccoo pour ulay jàngal leen ndax tellement que dafa du ak xale yi dafa baax ak xale yi ba pare mën li muy def macha allah am xam-xam kon la yàlla na la yàlla defal jàmm ba ba nga nekk inspecteur inspectrice incha allah rabbi kontaan nañ vraiment macha allah fi nga génn ak ñun kontaan nañ damay dugg tamit ba biir Mauritanie Mauritanie laa jëm daal di nuyu Aïda Sène Aïda Sène sama xarit boobu noonu di ko wax na Xatta marax ba di ko wax wanni bik maa ngi lay nuyu bu baax Aïda Sène yow borom noir shot euh, di la nuyu sama commerçante bu ñaawul boobu nuyu naa la na Xatta marax ba nga fii sa bopp <laughs> yéen yéen ndey yéen ñaar waa léegi man man nga ma bàyyi mu nuyu wala mënoo ma bàyyi mu nuyu tey du ma woon tey sama xarit bi Mariama nga xam dama koo lakkal baaji baset ku malan fin nga xam ne dama ko lëjël lëjël lëjël lakkal naa la sonal naa la fatt naa la te mosoo mer di ko wax joyeux anniversaire happy birthday to you sama joolaa bu ñaawul boobu dundal ba say may di baawaa la dul doyul yàlla may la borom këru mbër bu dul bëre borom këru albarka ci darajey Seyduna Muhammad balaa déwéet incha allah te portable yi nag na ñëw di la wax nag par Mariama portable yi na ñëw xam na fu muy waxee yaay Fall euh, ginnaaw xas si dafa metti ba kenn mayu ma temps d'antenne bu ma nuyoo léegi man maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi ñuy seetaan di leen sant di leen gërëm di commencé nuyoo ba ca axlu bayti rasulullah Mamadou Maxtaar laa jiite ko ca Cambérène ca Cambérène di nuy bépp kilifa diine kilifa aada di souhaiter joyeux anniversaire guddal fan wéral Mariama Badji sama rakk ju baax ji xale bu yaru bi xale bu baax bi xale bi ma bëgg xale bi nga xamante ne loo ko wax mu ree guddal fan dundal joyeux anniversaire longue vie à Omar réew nag <laughs> du ma ko téye de. gis nga li nga nëróo ak lii li nga sol ak lii li mu nëróo yi. Alaaji Malick. <clears throat> kon nag lii rek nga bii laay endo rek ngay nëróo téyel yow jaaykatu fëleer yéen ni ngeen def nii laal la. xanaa sànq daal ko leen. sànq. eh Mbaye. doo ma nga ñëw foto ñi ngir yàlla rek foto. taxaw ni foto garaaw am benn problème ku ma ñu yàlla baax na. nag yéen gaawal yow ngeen pare nga jërëjëf Demba. xam nga loolu. non Demba waaye léegi li ngeen def yéen tamit. bu la ma ba nga nekk nii. قطب الوجود تاج العارفين ومن مقام الوجوه وتاج العارفين من مقام كان محفوظا ذاك أبو العباس الكبريت الأحمر والقطب المكتوم والبرسخ المختوم والهمام الأفخم والعيلم العلم أبو الفيض السمداني أحمد بن محمد الكيشاني رضي الله تعالى عنه gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan rawatina ñi nga xam ne ñu bàyyi xel di leen ñaanal jàmm fan bu gudd ak wér-gu-yaram rawatina ñi nga xam ne ñu ci biir réew mi ak ci bitim réew mi yal na yàlla euh, fii la nekk ci groupe Kouthia Show yal ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram moom Mariama Badji yal na yàlla defal jàmm xale bu yaru wax dëgg yàlla koo xam ne euh, jàmbaar la euh, wax dëgg yàlla xale bu teey koo xam ne wax dëgg yàlla tamit ku nangu yónneent te xale la te wax dëgg yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm bu baax koo xam ne dafa am yërmande bëgg bëgg sëñ Babacar Sy di taalibe sëñ Babacar sopp ko bëgg ko di joolaawu sëñ Babacar Sy moom si boppam sax maa ko tuddee joolaa sëñ Babacar Sy ndax fonk bi mu ko fonk ak bëgg ko Mariama happy birthday to you yàlla defal jàmm may la fan bu gudd góor gërëm tey nag sagato xam naa ne diwtiir lañ koy toggee waaw kay sagato moom diwtiir lañ koy toggee bu soobee yàlla yàlla yàlla defal jàmm euh, di wax nag sama benn xarit ñu ko Thierno PDG Poulet Trésor et tout le personnel de Poulet Trésor ginaar yu neex yooyu Cerno nit ku baax koo xam ne daal wax dëgg yàlla yàgg naa lekk ay ginaaram te xaw ma ne moom moom moom ginaar ya démb nañ tase ci bunt bi rek ndekete xaritu booba nduur la ma ne ko Cerno mu ne ma na nga def ma a ko euh, mbaa yaa ngi ci jàmm ay sata moo ne ma kii mooy borom euh, trésor poulet poulet trésor ma ne ko naka jekk nag euh, tur ba wóyoon na ginaar ga ndax ginaar ga moom bu ñoru sax nga koy gën a bëgg sax balaa muy ñor ndax nooy gi mu noox ay año lay jaay año ginaar a ginaar yu ndaw yoo xam ne boo koy naw ba pare ginaar yi ci boppam dafa safta neex moom ma Thierno PDG yal na yàlla gudd faram may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram à tuuti Sagna princesse joyeux anniversaire à tuuti Sagna princesse de sa famille belle reine borom Gambia de la part euh, de la part de ta maman Australia qui te de, de, de la part de ta maman depuis Australie qui eh, te souhaite longue vie santé et bonheur à Tuuti Sagna Tuuti Sagna nag yaayam eh, e moo ko koy souhaité foofu ci Australie eh, happy birthday to you joyeux anniversaire à Fatoumata Daffé infirmière à femme hopital hôpital Fann longue vie santé et bonheur Fatoumata Daffé ku baax la ba ma nekkee femme ci euh, corona ba bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ ma doon saytu di ma toppatoo yal na ko yàlla defal jàmm jamanka euh, mécanicien depuis Ziguinchor fan sa Kouthia yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla defal ñëpp jàmm mbokk yi dañuy tëj ak ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy Malick Gakou defe naa ne fii Youssou Ndour jaar ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall Sonko jaar fa ak Bougane Gueye Dany Alaaji Maalik ngi préparé tamit son ba nga xam ne moom la ñëpp jaaroon ca morso ba fas yéene ko indi Malick Gakou mu tamit ndekete samp na li nga xam ne mooy candidature am Malick Gakou samp na candidature am woo ci jigéenu ah jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci gëm sa bopp ñu fekk si ko ànd ak moom fas yéene def déclaration officielle que Malick Gakou samp na ndëndëm nee na ku dem mu dem ku demul day dem nekkatul Malick Gakou Guédiawaye ma Malick Gakou Sénégal ndax grand parti mu ngi fépp kon alaaji Malick yaakaar naa ne kale na morso ba jigéen ñi nag ña ngay fas yéene ñëw ànd ak ki nga xam ne mooy euh, Malick Gakou dooleel ko gunge ko ci projet bi nga xam ne moom la fas yéene def kon nañ ci sant di ci gërëm képp koo xam ne yaa ñu ñuy bàyyi xel mbokk yi ñu seeti Malick Gakou ak jigéenu euh, euh, grand parti bi nga xam ne nag gëm nañ seen bopp ne ñoom Malick Gakou mooy cinquième président de la République ñu seeti Malick Gakou Euh, euh, yal na yàlla defal jàmm. mbi jë ba sama taayee bàyyi yow yaa moom siin moom saalim moom jaxaaw waaw waaw euh, balaa ma koy balaa ma koy balaa nga waxaat ko ma ne ko gàkku mi jë ma ca gaat ngand ma ca pooleen jogoy njéeme far ba jaxaaw mbaara mi ci njaay mi jë mi jë ba fu ma taayee bàyyi yow mi ma mi jë nga gaat mi nga siin waaye mi nga mexe nee naa ko yaa moom siin yaa moom Saalum yaa moom Jaxaaw. Euh, wax dëgg yàlla maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax waa Sénégal euh, samay morom ñoo posé wu candidature samay nawle ñoo posé wu candidature waa Sénégal ñooma may ne ma Malick gàkku gis nañ ci yow jom fulla ak régularité duñ ma dégg ci wax ci ñaaw du ko jëfee du ma ko diglee te doxuma ci loo xam ne day yàq Sénégal. maanaam nekkuma di tontante war ma jëflante euh, te buñ ma ñaanee ma ma ma maye te buñ ma tooñee ma baale euh, Sénégal nag boo xoolee ci taxawaayam ak ni ma taxawee mooy cinquième président de la République Sénégal incha allah ci kàttan yàlla maa ngi euh, jigéen ñi xam ne ñoo jël décision ne balaa kenn di wax balaa troisième âge yi wax sage parti bi jeune parti yi ñun jigéen ñi nga xam ne ñun ñoo gëm projet mali Gakou ndax ñooy des ci kër yi ñooy ànd ak yow ñooy mobiliser ñooy propagande ñun ñooy jiite ak yow ànd daal di def suñu candidat officiel. Euh, ma ci woo ñu ñëw sargal taxaw taxaw jigéen pour ñëpp ànd daal di ñëw wane ne. Malick Gakou daal du caaxaankat mali Gakou daal du nit koo xam ne Sénégal ci boppam ñoo ko bëggal boppam waay ñoo ko bëggal boppam fi ma juddoo Waalo Bawal Siin Casamance foo ma am rek am naa fa ay mbokk Malick Gakou bu ñu yaakaar ne Géejawaay rek ko moom Malick bu ñu ne Waalo rek ko moom Malick Gakou bu ñu yaakaar ne eh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci bët gànnaar ñoo ko moom Sénégal ñoo ko bokk diaspora ñoo ko bokk sama morom yi fi jaar nag gënuñu ma gënuñu ma nekk xale te danaa leen ko wan ñii gis naa leen def karaté ñii gis naa leen ñuy yëngal ay yaram te dama leen di bëggal ndax yéen a ma fas yéene bëggal ba yóbbu ma pare kon suñu technicien bi bu fekkee ne pare na ñu ñu wan ko ay doomu Géejawaay nañu ay doomu Sénégal nañu ay nit yoo xam ne ay nit ambiance nañu ndax nit da ngay am xar kanam boo xam ne ku la gis bëgg la ay cawaay Just